asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi Bichri TV man soxna Rokhaya Ngaye Ndo maa ñëw ak yéen ci émission bu bees bu ñu tuddee euh, xam sa droit xam sa droit nag di émission bu nga xam ne dafa am solo parce que droit dafa nekk lu nga xam ne dafa xóot donc euh, ñu tegal leen benn émission bu nga xam ne dañ ci war a mën a waxtaan di ci feggoog ñi nga xam ne ñooy ay avocat di ci feggoog ñi nga xam ne mooy ay professeur université yi nga xam ne dañuy jàngale droit di ci feggoog sax ay étudiants bu laajee sax ñu ànd ak waa police ànd ak waa gendarmerie mooy ñëpp ñu nga xam ne daal seen xam-xam dafa màcc ci li nga xam ne moom moo di droit xam sa droit day ñëw pour leeral leen war leen yoon bu nga xam ne da ngeen fa a mën a jaar ba léegi yenn problème yi tamit di ko mën a moytu daal donc teewlu leen di xaar seen émission xam sa droit fan yi bu yàggul incha allah dinañ leen ko indil ci ci Bichri TV donc à bientôt